TV yu ñuy seetaan euh, dal voilà amis téléspectateurs euh, ñu toog ak euh, kenn ci li nga xamante ñoom ñoo nekk hôtesse yi muy uyoo turu Nabou Nabou asalaamaaleykum. maaleykum salaam. na maa ngi fi. naka ngeen nekk di waajalee final bi. waaw waajal nañ ko nuñ ko war a waajalee. final bi waaw waajal nañ ko li si war lépp def nañ ko. Uh-huh. li si war def nañ ko lépp mën na tamit dara manqué wul. Nabou ñu gis seen ngeen jekk nii macha allah ah yéen ñëpp ngeen niroole lii ma bëggoon xam euh, niroole bi nan la demee woon. niroole bi waaw dañoo bokk zone ñu jox ñu suñu gëdd si zone bi. indi ñu ci indi ñu ci daal ci terrain bi daal def ñu benn genre morceau fobere jox nañu lépp lu mat dañoo jënd lépp lu mat daal yëre lépp tout ça. jox leen ko. lépp lañ ñu jox ñun fere ñu dara suñu xaalis. kon zone bi am na xaalis bu bëri de. ah macha allah waaw ah, macha allah. waaw ma ne yéen amis téléspectateurs yi loo leen di xaar pour ñëw bokk zone zone dafa mel ni macha allah bëri na xaalis trop. ah zone neex na macha ah, allah ah xaalis bi jógee. ah xaalis bi waaw. jóge na ah waaw parce que tamit boo gisee. te ñi ñëpp toog ni tamit di supporter. xam nga tamit da ngay ñëw jënd sa ticket. boo ko defee tamit xam nga stade mun a fees maanaam daal su ma sama gàttal sama wax bu gàtt suma ko sama wax bu wax bu gàtt daal. mën naa ni askan bi la rek. waaw entrée bi mooy ticket yi. waa ticket yi ñuy dagg nawetaan yeeg yooyu noonu. d'accord. waaw moo et aussi tamit ça montre ni da ngeen am euh, staff ci biir zone boo xam ne dafa jub xoj. waaw dañoo dañoo dëggu. dañoo dëggu tamit. waaw moo tax. Euh, mm-hmm. final yi tey kan ngay supporter. am nga droit supporter wala amoo droit supporter. <laughs> non aw ma am naa xool mais xam nga. Uh-huh. ñaari équipe yi daje nii dañ maa jege daal. d'accord dañ maa jege te sama équipe tamit macha allah nekkoon nañ équipe bu mun football. mais jaam ak pexem yàlla dooloom daal. ñun dañu ñëw doon demi final. yéen SSC équipe dooruñu ko 100 0 ban équipe nga dëkk. non Cité Sotiba laa dëkk. dëkk Cité Sotiba ah macha allah équipe boobu moom équipe bu mag la. ah bu mag la mais tamit xam nga. bu yàlla nee dangay ngay ñàkk daal da ngay ñàkk. waaw ah, noonu la fa demee d'accord léegi ma bàyyi la balaa ñuy tàggatoo en tant que hôtesse lan ngay wax dirigeant yi lan ngay ñi lay seetaan. waaw ah, ñi may seetaan waaw ma leen di wax ni ñoom ñëp maa maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw ñu gis ni tamit jàpp nañ si neefitaan bi xam nga jàpp nañ si bu baax a baax a baax daal ñu kenn tamit ñu tamit hôtesse tamit kontaan nañu bu baax a baax a baax parce que mënoon mënoon nañu fay indi xam nga luy war si ñun duñu ko def tamit mais manqué ñu dara lu ñu laaj ñu jox ñu ko meruñu daal meruñu. waaw loolu la am. léegi euh, Nabou dama bëggoon balaa ma laa bàyyi aussi dañoo gis ni rassemblement de jeunes yi dafay bari léegi ay violence ah te violence loolu waruñu ñun ay doomu Sénégal lañu euh, ndam li génnul réew bi ah génnul Pikine bi ma bëggoon nga lancer message de la paix à l'endroit. Euh, waaw lii boo gisee nawetaan foo kase la. foo la du xeex du xuloo pour man boog bi nawetaan bi commencé commencé ba tey. gisaguñu si benn affaire boo xam ne nekkul affaire de loo xam ne du fair xam nga ba suñu match bi passé demi demi final bi fair play lañu doxalee match bi jeex na ku nekk encouragé sa morom ku nekk dem sa yoon xam nga affaire tamit jeunes mat nañ li war lépp daal mat na sëkk lépp mat na macha allah affaire tamit fair play la li ma leen wax daal mooy fo foola xam nga fo ku gagné sa morom tamit nga encouragé ko félicité ko parce que bu yàlla dogalee yow da ngay ñaax bu kii nee bu yàlla nee kii mooy gagné tey koo koy gagné tamit. supporters yi tamit ñoom am compréhension. supporters yi tamit nañu am benn compréhension. te xam ne foo kase la daal foo kase la. waaw loolu la am si li may wax. d'accord jërëjëf Nabou. ah ñoo ko bokk. d'accord merci beaucoup.